mbokki nuy nañ leen dalee na jàmm ci seen revue d'actu liñ ci fas yéene waxtaane tey bokk na ci homologation stade Lat Dior bu Thiès Augustin Senghor mi nga xam leen ni boo moyul du yomb ndax coowal pelouse gi ñu nemmeeku fan yi ñu génn Youssouf Badji bokk na ci téeméeri ndaw yi nga xamante ñoom la ñu tabb ñu fas yéene jongante raay bi di Golden Boy 2020 ci wàllum mercato Alassane Ndaw ñu ngi koy xaarandi ci diwaanu Grèce ak club bi di Olympiakos wax lu jëm ci CAN handball ak Sénégal mi ñu éliminé ci quart de finale yi ci wàllum lamb nag promoteur bi di meng Mbengue daal dinay addu ci relation bi nga xamante am na ko ak Balla ci relation bi nga xamante am na ko ak Balla ak Augustin Senghor daal dinay euh, addu ci coowal pelouse stade Lat bu Thiès moom nag euh, li mu jàpp euh, mooy moom nag li mu jàpp mooy nekkul woon di tontu ki nga xamante moo di Sadio Mané ndax jàpp na ni jot na waxtaan sax ak cadre équipe nationale bi ci li nga xamante moo jëm ci pelouse boobule ba daal di leen wan échange yi nga xamante am na ko ak spécialiste bi war ñëw ci semaine fii ci diwaanu Sénégal ngir daal di gën a ñoñal boobule pelouse muy xamle ni kon ñoo war a rafetlu liggéeyu fédération bi nga xamante dafa daal di jël ay koppar defaram euh, ko ci stade boobu noonu ngir daal di koy mën a defar euh, balaa ñuy critiquer dem bay wax ni kon na ŋàññi gi ñuy ŋàññi pelouse stade boobu boo moyul dina tax kenn du ko daal di homologué euh, te nemmeeku nañ ñi ci ñaari bëccëg yi weesu CAF dafa daal di kon autorisé Sénégal mu daal di jongante ci bile stade waaye itam bàyyi public bi mu ñëw mu nekk ay mbir yoo xamante moom Augustin mi ngi ko lu bu baax tey xam le ni kon fii léegi septembre dinañ def seen kéem kattan bay stade bi ñu daal di koy homologué Sénégal mën di ci accueillir li nga xamante moo di éliminatoire coupe du monde yi ci lu jëm euh, Golden Boy 2021 nekk kon raay bi nga xam te dañ koy daal di jébbal euh, joueur bi gën a xarañ amagul euh, ñaax fukki at ak benn atum daaw Erling Haaland moom moo ko daal di jëloon atum ren nag xam nañ téeméeri joueur yi nga xam te ñoom ñoo war a jongante te boobule raaye jàpp leen ni Sénégal nag benn joueur képp moom moo ca daal di représenté réew mi mu Youssouf ji nekk ci club Bruges moom nag saison bu ren daal di nay jongante lu tolloog ñaar fukk ak juróom-ñetti match daal di dugal li nga xam te moo di moom mi fi nekkoon attaquant ca bu weesoo euh, moom nag daal dinañuy remarqué absence su ki nga xam moo di Pape Matar Sarr daal di dugal ñeenti but ak vingt cinq match yoo xam jongante na ko ci Ligue 1 ak Coupe de France euh, ci ren jàppale ni Youssouf yi nag moom mooy kenn ci ñetti euh, doomi réewu Afrique yi nga xamante jàpp nañ leen ci cent joueurs yi Tuto Sport daal di publier niki démb ñu wax ci lu jëm ci wàllum mercato ak Alassane mi nga xamante ñu ngi koy xaarandi ci diwaanu Grèce ak club bi nga xam te moo di Olympiakos jàppale ni nag moom saison bu am solo laa daal di def ci Super League bi ak club bi di Fatih Karagümrük ci ay statistiques am nag jàppale ni jongante na lu tolloog 38 matchs 11 ak 9 passes décisives yoo xamante daal dina koy def passes décisives yoo xamante daal dina koy def li ni mel nag daal di taxoon club yu bëri daal di koy bëgg doonte moom contrat wam juin 2022 lay daal di jeex ak club turc bi diwaanub Grèce foofu nag presse bi yëpp ñi ngi xamle ni kon ah, ca Olympiakos la fas yéene jëm daanaka ñi ngi xam xamle ni accord am na ci ñaari club yi ci wàllum ah, handball jàppale ni Sénégal daal dinañ ko éliminer ci Coupe d'Afrique des Nations bi ci quart de finale ah, Congo moom ko daal di éliminer di koy dox 21 à 20 mu nekkoon match boo xamante nag Sénégal daf cee daal di amoon ay jafe-jafe yoo xamante ne meeku nañ ko daanaka bu ñu sukkandikoo ci kaddu ki nga xam te moo di capitaine bi di Xawa Ndiaye mi ngi leen ni kon Sénégal démb amoon na lépp ngir gagner match boobu noonu waaye dafa daal di jàll euh, ci côté wu li nga xamante moo di qualification yi mu nekk kon euh, échec euh, ci réew bi nga xamante daaw demoon na ba ci li nga xamante moo di final yi waaye jamono gi kon Sénégal li nga xamante moo di coupe du ba sax du ci mën a bokk Fred Boujan nag di ki nga xamante mooy tàggat gaynde yi daal xam xamle ni kon Sénégal statut favori am dëggalu ko ci boobule match dafa daal di bàyyi Congo mu daal di déroulé am na ci ay mbir yoo xamante gis nañ ko ci match à élimination directe yoo xamante Sénégal waru ko woon kon jongante ni ki démb promoteur bi di Gaston

maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.